yes wala bok la mi fa wala wala à vous de choisir comme ni makoy faral di waxe à chaque fois nee len entre wala bok wala wala boogees boo len ci choisir man taamu ko parce que yéen rek lay top topp ma Kenen. donc ma ngi len di nuyu di len jaajëfal bu baakha baax di len jox way mais aussi di len show bien sûr et your girl Kenza 221 votre grande chroniqueuse borom matricule 221 xaritu ñep et d'aller à ak jamm ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 wa mais bien sûr tellement ma hein. la chaîne des news la chaîne des plus belles chroniques mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game kon nak lolé ni xaar comme ni vous faral à chaque fois bu xaayee rek ñorna firi rek bàcc mo ci dess Continuez à vous abonner et activez en même temps la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos nee naa leen actualité hip hop Gals boo leen bëgg xam non mais ci man da ngeen ko mëna votre grande chroniqueuse Kenza 221 donc abonnez-vous nak abonné len dé ngeen activer cloche pour ne pas rater nos vidéos qui suivent. Vous jouez à 1xBet, n'oubliez surtout pas d'utiliser mes codes promo KENZA221 wala KENZA. C'est écrit en majuscule et c'est collé te dina vous permettre de gagner un bonus de 150 000 francs CFA. Oh my god! ku ne xam na loolu du ay faux donc en juin veuillez s'il vous plaît utiliser mes codes promo Kenza 221 wala Kenza tànn sa neex la alors sama gars damay ñëw wax ci ki nga ni une analyse globale concernant son projet album bi nga récemment intitulé LF LF dont ce dernier signifie tout simplement le fii la bien sûr yéex naa cee wax trop sax parce que génn depuis lors mais fallait que je déglu ko plusieurs fois et attentivement parce que je me dis que projet boo ci wax na fekk nga xam loo ci war pour lan respect envers l'artiste qui a passé des nuits blanches mais aussi respect envers artiste bi nga dépensé dépenser beaucoup de sous ci projet pour su le public bi pour su ko public bi mën waaye tamit respect envers public bi nga xamante ne nii ñoo may suivre et xëy na ak man la ñu mën a comprendre yu bëri yu nekk ci biir album bi. loolu dong moo waraloon ma yëg see wax doon jël sama temps déglu ko defaraat affaire yéen ma gën a xam mais man ak yéen ñoo far suñu waxtaanee rek jigo donc looloo waral tey ma ñëw def une analyse globale concernant LF LF de Dip Doundou gis mais balaa ñuy dugg ci biir di leeral affaire yi et tout nañ àndoon xooli un sound intitulé quarantième jour ci projet bi ñëwaat léegi léegi Pao su baaxee ñu dem. ngeen yéen tout sauf ça te woo leen salte ngeen ni duus ak sax tax may rewantu ni caat ba mu jurus doon tax. bon on a vu ensemble le sound et ce dernier est intitulé quarantième jour c'est un sound que j'apprécie beaucoup en fait bien sûr comme ni ma leen ko waxee nag ñëw une analyse globale du projet albumu Dip bi nga intitulé lépp fii la ñu fekk parce que nag projet bi daa am yu bari yu nekk ci biir côté écriture côté beat thème ego thème rap way featuring il y a tout dedans mais avant tout j'en profite pour dire félicitations à Dip Doundou mais aussi félicitations à toute l'équipe de Dip Doundou parce que vraiment job nañ lu remarquable ci album bi génne benn produit bu jaar yon rek yombul waxatuma nga benn projet album bu am 18 titres yu nice sax avec des featuring tellement chaud et gars yi li ci gëna cool moy bo déglu ci sound ni ne moo sa morom do xam exactement ban mo ci sa préféré tellement que les sound sont trop dope donc mention spéciale à eux mang ngi leen di jaajëfal bu baax baax li day woné ni que Dip Doundou gis est très bien entouré et que par des cracks nak bien sûr.

titre album bi di lépp fii la ñu fekk day gën a leeral li nga xamante ne ni moom la Dip Doundou gis dund dans le passé mën na nekk trahison mën na nekk tamit li nga xamante ni moo di tentative d'assassinat extra waaye tamit ak li nga xamante ne ni moom témoin la si mu fekkee ko au fil des années et bien sûr lu koy firndeel mooy mën nañ jël exemple ci saawun yi di ñetti at ci ren ak saawun bi di seetu nga xam ne daf ko ci confirmer ensuite su ñuy wax ci présent maanaam lu actuel cover bi rek day résumer en partie l'époque actuelle de Dip ci nan ci son posture bésémique, ak tamit solon bi nga xamante ni symboliser maturité parce que ba leen xoolee habillement bi ci cover bi rek maanaam ni mu soloo dama c'est juste pour montrer maturité bi nekk ci c'est-à-dire que Dip Doundou Guiss inconscient bu mu nekkoon léegi nekkatu ci par contre daa gën mature gën responsable aussi enfin su may wax ci li nga xamante ne nii mooy futur mooy yu bees tàkk la ci indi yeneen objectif yoo xamante ne ni da ko war a atteindre daf ñu xamal ni mu war a doxalee dans le futur et wax na ko ci biir sound bi nga xamante ne ni c'est intitulé jële li des bokk ci album bi en outre album bi mën naa ni benn aperçu la si la suite ci carrière Dip Doundou gis cest à teg benn pas pour horizon yu bees tàkk en somme ci biir album bi di lépp fii la ñu fekk Dip Doundou a utilisé utiliser alter ego Manam mon artiste bi day wax ci au nom de la personne mais de manière très codée Dip moy rap d'accord mais Dominique moy wax ak ñun à fond man après avoir écouté l'album lepp fi lañu fekk de Dip Doundou vraiment dama naan Dib est à la hauteur après 4 ans d'absence Manam xaar bu yàgg bi ñu tok 4 ans jaroon nako. le pourquoi parce que album bi dafa nice album bi dafa riche lépp loo soxla di nga ko ci fekk muy ses vécu ci le passé le présent le futur ak yeneen ak yeneen di nga ko ci fekk à vrai dire lépp fii la ñu fekk de dib Doundou Guiss dafa présenté wu comme benn album hip hop bu ànd ak richesse ak ay diversité très remarquable gars yi album bi ci boppam dafa enraciné wu ci ay rythme yoo xam ne boo ko déggee rek da ngay xam hip hop la et noo koy distinguer mooy exploration audacieuse ak sous-genre yi comme lii di drill trap de ajouter une dimension dynamique et contemporaine à l'œuvre te ci ak bit yi sonorité bit yi dafa trop bit bu sa morom le pourquoi ndax sonorité bi ak instrument le piano la guitare la trompette le violon ak li nga de tamit tamit tam-tam te loolu dafa indi benn profondeur ak benn texture unique ci chaque morceau yu nga xamante ni mu ngi ci biir album bi di lépp fii la ñu fekk mention spéciale à toi Dip Doundou Guiss man je me dis que album bi nekkul album hip hop rek mais mën naa ni benn célébration ou fusion la ak genre comme par exemple benn pont bu mu teg diggante sonorité traditionnelle ak moderne lolu di illustrer capacité wu DIP que mëne na ñaari côté yépp à part lolu nak gaay ya y a beaucoup de commentaires yo xamni jotna ko lire te gis naa ne li ko gars commenté na trop sax muy lan pourquoi Dip Doundou gis amul featuring avec des artistes internationaux dans l'album donc ñu bari dañu japp ni que Dip Doundou gis bien sûr visé wul niveau international bi parce que amul featuring avec des étrangers ci album bi di lepp fi lañu fekk. quant à man nak sama xalaat ci lolu moy dama nan lolu dara bien sûr il faut ngeen déglu album bi bu baax sax pour xamné qu'il est déjà dans un certain niveau et ci noonu album bi dina jaay popom ci lu yomb surtout à l'étranger ndax qualité bi ci nek c'est pas parce que deful featuring ak ay étranger rek ki Dip Doundou Guiss visé wul niveau international pourtant dib Doundou gis def na fi featuring ak Lefa bien sûr def na fi featuring ak yi nga xamante ni modi di euh, Youssoupha ni la sentiré won ko projet que faire des featuring avec des artistes sénégalais loolu la ci fiil motax mu def ko mais man je me dis que loolu du dara dama naan xëy na nii la ko sentiré won motax mu jobé ko ni mais rien d'autre et à vrai dire c'est très extraordinaire de déglu album bi tek ci di gis album bi ni mu aborder une variété de thèmes sociaux et des encouragements boy déglu album bi da ngay sentir muy véhiculer ay messages très importants yu lay yok espoir manam gëm-gëm même bu fekkee da nga nekk ci ay difficulté sax am yenn sound ci biir album bi parce que y a beaucoup de sound qui motiver gars di courage et c'est très important de motiver le public. mais ne man dama ko vous avez fait la remarque ou pas mais perso j'ai fait la remarque muy lan indi transition ci album bi muy lan chanter parce que bo leen dégloo album bi bu baax di ngeen xam carrément que Dip Doundou Guiss daa way comme ci sound bi nga xamante c'est intitulé Sunshine don ben aussi en featuring avec Moré waaye man su ma déggee Dip way damay apprécier le pourquoi parce que naan dama naan Dip Doundou Guiss amatul lenn lu muy prouvé ci rab bi mën na ko ba pare te ñun ñëpp xam nañ ko donc bu génnee feneen ci album bi même su fekkee rab na ci loolu daf ñuy neex il nous montre sa polyvalence et c'est très très et très important autrement dit nak Dip daa am ben habitude muy lan muy di impressionner public bi Mom à chaque fois mu génnee projet dina def le tour créer ben polémique te lolu mom ci bopom wax nako ci projet bi parce que nee lo def ñu ne la du nii bi ci top nak gars mo ci bir album bi dafa am caractère yu bari yo xamante ni noté nako ci muy lan de un ci côté lyrics yi ba léegi Dip Doundou gis mën naa ni plumam maanaam bic ak encre bu muy bindee yépp da ko collé ci bépp code muy la société la famille sa et sa foi booy déglu album bi da nga naan sax lii prolongement la ci albom tay la kañ ak l'album loo ñeme ñàkk ak morceau yu bari yu ci mel ni euh, jëli li des destin homi sound au nom de seetu suba tefes wala ñetti ak ci ren parce que ay son la yo xamante ni day motiver boo koy da ngay gëna am courage ak détermination détermination wu réussir ci sa vie par la force de deux ñu jall ci côté musique bi alors bien sûr côté musique bi dafa def choix mélodique bu nice, sax te adapté ci chaque message que xamni dako jallalé bien sûr dans la musique mom certains sound nécessitent nécessite ak ay beat mélancolique wala agressif classique wala sax drill te bit yii yëpp gis nañ ko ci li nga xamante ni moo di albumu dib Doundou gis bi di lépp fii la ñu fekk te bien loolu moo waral album bi am benn coloration artiste bu naay sax artiste bu ci nekk Dip dalaa woo ci fi nga gën a mënee non mais des featuring tellement extraordinaire de trois ci côté boobu la ñuy ñëwaat ah, ci côté featuring yi ci biir album bi gis naa ni Dip Doundou gis daa sélectif avec moyen de featuring maanaam ñu mu def ak ci album bi bariwul il a fait des featuring avec euh, avec certains artistes qui ci les BMJ Samba Posi Azabes Moré Ouzik Buzz Fada Freddy extra mais nag am na ñaari featuring yoo xam moi man moom franchement dañu attiré sama attention quoi muy le featuring avec Fada Freddy le featuring avec Ouzik Buzz vraiment ñaari sound yooyu moom samay coup de cœur lañ loolu moom je le dis haut et fort sound yooyu dafa ma neex en fait dëkkaat nag dañu ñëw ci li nga de ni avec ak les clash yakamti woon ngeen loolu bien sûr je vous connais très bien loolu rek ngeen yakamti won ma wax ko man xam naa leen nañ sax lay wax alors à vrai dire Dip Doundou Guiss di génnee album mukk sans clash ci wala sans dispique les autres xam ba xam ndax seetlum ngeen ko ou pas mais ci morceau yu bari certains mots boko ko rek da ngay xam li lii pig la surtout ci sound bi di ñafal top 5 ak WNPWY

mais il faut comprendre que la logique bi la maintenir depuis l'album Taïla tay et je me dis que de solidifier gagner l'air à polyvalence bi la ci moom en tout cas man j'adore l'album j'ai beaucoup adoré vraiment mais nous notons que en musique chacun est libre de faire ce qu'il a envie moom la relativisme mais tamit attention nit sommes libres libre ne juger selon son choix maanaam li ci lui..! te nit ki moom lépp loo xamante nekk na ci moom mu wax ko jàppal ko loolu parce que li mu gis lay wax gis nañu tamit Dip Doundou Guiss dafa investir dans l'album lépp fii la ñu fekk et il a réussi par contre le seul côté bi nga xamante ni dama siy inquiété wu mooy way bi Dip Doundou gis essaie d'être très focus ci way bi et damay ragal mu versé wu de trop ci way bi négliger rab bi dans l'avenir xaw ma nag Dip day liggéey bu baax a baax ci way bi loolu on parce que si vous dégloo album bi di ngeen xam mais day way côté vous rek lay xawa inquiété wu xawma mais en tout cas il a très bien bossé ci biir album bi di lepp fi lañu fekk ku jël sa temps ko du début jusqu'à la fin vous nga xamni 4 ans yi jar ko. à vrai dire gars l'album album bi yeb duré na presque une heure de temps mais soo koy déglu da ngay yaakaar sax ka dépassé wul 30 minutes non faites la remarque di ngeen xam le ma wax da ngay dépassé wul 30 minutes tellement que c'est dope bu bokay koy do sax gis temps bi donc félicitations à toi Tu Doundou gis vraiment jom nga ci album bi bu je vous dis mes sounds préférés euh, mes sounds préférés sont au nombre de trois featuring avec Ouzik Buzz 40e jour avec featuring avec Father Freddy non mais ces trois sounds sont mes coups de cœur sounds yooyu moom je les apprécie beaucoup yéen tamit wax leen seen xalaat ci commentaire yi noo leen l'album de Dip Doundou intitulé Le fii la Fake. fekk ban sound moi ci seen préféré ak lan ngeen doon gën xaar ci album bi côté positif mais tamit côté négatif à vos claviers bàyyi naa mu donc lii laa ma wax ci l'album de Deep Doundou bon bien sûr je faisais une analyse logique analyse globale concernant son projet d'album n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker comment le jeu sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel